match bi comme d'habitude rek daw lañ doon tit sax non daawaati jéeg lañ doon tit mais ren moom dañu ñew confiance bu nganda nganda nganda nganda confiance bu ngand équipe yi fi nek yépp lén na ma ñoo leen mën non wolu suñu élément am expérience surtout ci coach bi ak joueur yi maanaam boo seetloo nañu yóbboon presque ñom lañuy ñuy indiwaat maanaam expérience bi am nañ ko ci coach bi ak ci joueur yi booy dañ leen di euh, intégré rek nga relève moom buy ñëw da koy teel a jël moo tax booy dañ leen di teel a jël intégré leen nga xamante ne dañuy ñëw rek nekk ci. man Sénégal bi rek jàpp naa ne man amul benn danger parce que euh, d'après li mu feetaan ci kan boobu Sénégal moom amul benn équipe boo xam ne war na ko mën a gaalankoor franchement. même pas que je mais. am nañ ay joueurs yu talentueux parce que boo xoolee suñu match bi passé suñu match contre Gambie euh, Aliou Cissé dafa teg trois défenseurs daal di renforcer milieu terrain bi génne ñaari flèche ñu am Pape Gueye ak Lamine Camara ci milieu terrain bi gis nga sax ñoom ñaar ñoo mujj a dugal kon donc amul benn équipe boo xam ne war mën a gàllankoor ci kan bi daal. Sénégal moom fu mu ne Euh, da ngaa mën a wax ne dafa mën a na benn jafe-jafe ci match bi parce que boo bi premier mi-temps ñun ñoo ko gagné dabaat ci contre Cameroun bi parce que Cameroun tout récemment fu dal lañ lu yàggul dara te Cameroun bi gars ñoo nekk di ko. traité ba léegi mais li fi nekkoon nekkatu fi Cameroun ñun ñoo ko mën fukki junni yoon Cameroun Cameroun dafa am dafa am ay manquement yu fa nekk depuis lors ba léegi Cameroun boo xoolee ba léegi ñoom coach bi ñu soxla ñoom amaguñ ko parce que song bi fa nekk déjà ñun xam nañ song tànn xam nañ loolu noonu équipe bi aussi dafa am ay manquement yu ci nekk depuis trois ans ñu ngi nii boo xoolee même ñoom bi ñuy jël kaan bi sax ñoom taxawuñ amul équipe. équipe Sénégal bi boo ko xoolee gis nañu équipe bi dafa progressé ak doole fi mu nekk nii. soo xoolee fi mu jógee ci match éliminatoire yi boobu ba léegi euh, ñu ngi continuer di progresser te loolu dafay confirmer seen euh, progression actuellement parce que seen match bi seen sortie bi ñu mujj def rek dóor Gambie par 3 euh, bi à 0 ça montre que équipe bi mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci yoonam daal. waaw boo xoolee tey ñoom ñi nga xam ne dañoo dugal ñoom ñu ngi prouver. soo xoolee comme ku mel ni Lamine Camara euh, ça fait presque deux ans ba léegi da fay confirmer progression bi mu nekk di def euh, soo xoolee ci CHAN bi euh, bokk na ci ñu tax équipe sénégalaise gagné CHAN bi u tamit joué na ci rôle bu mag mu dem Metz tamit di confirmer bu ñëwaatee encore day gën a confirmer ça montre que. Euh, c'est un c'est un talent pur quoi moo tax loolu lay confirmé et puis entraîneur bi tamit jox ko confiance muy exploité loolu quand même. match la boo xam ne match bu euh, match bu kii la quoi match bu am solo ci ñaari équipe yi parce que tey boo nee poule bi ñaari favori ñoom ñoo war a daje. mais tey boo xoolee équipe bu Cameroun ak équipe bu Sénégal am na une grande différence parce que boo xoolee Sénégal ni muy progressé Cameroun progressé wul noonu soo xoolee même si sorti rek seen première sortie ñoom ñaar yëpp Sénégal dafa gagné match nul te boo xoolee li Cameroun di joué actuellement nekkul dal xel quoi par rapport ak équipe sénégalaise bi ni muy joué moo gën a dal xel. équipe nationale bu Sénégal moom vraiment instant bii nii xel yëpp c'est un peu surpris xaw na surpris gars mais bon xam nañu ne choix bu baax la quoi euh, malheureusement ak match bii nii am nañu benn élément boo xam ne nii perte nañ ko muy Moussa Niakhaté mais comme que Abdou Diallo ngi fi ak yeneen secours yoo xam ne nii dinañ si mën a jàpp baax a baax instant bii daal le moral est maa ngi koy wuti ndam rek xam nga dem jàpp Cameroun nag zero bi patal bi patal bi moom waaw Sénégal moom mooy dóor 1-0 même 1 zero baax na. mais nañu gagné rek te Sénégal day gagné incha allah. je pense que ni ñoom d'après li ma gis ci kan bi Sénégal warul dóor kenn 2 zero trois jëm kaw la ñu war a dóor ñëpp. tey gis naa 2-1 2-1 2 zero Sénégal dañoo ko wuli 2 zero yu leer nañ.